nga xam ni moom laa ci wax mooy. Mhm. tey kuy jooy injustice moom ngay dimbali. wallaay ndaxte moom façon note bu ne note nañ ko. façon daan bu ne daan nañ ko ko. ndax tey li may wax mooy bi ñuy nangu département bi ci moom. bu Bambey jamono jooju am na ñoo xam ni li ko dal dal na leen te nanguwuñu seen bos parce que du Issa Niass mm. mu ngi nekk député assemblée mm. nekk président de la commission à la ville nekk maire mm. Aïda Sow Diawara nekk maire nekk adjoint au maire Guédiawaye nekk député waaw waaw mu ngi noonu donc yaakaar naa ni réew mi war nañ ko seetaat ndaxte ku ànd ak ñoom lu la neex ngay def ku àndal ak ñoom ñu néewal la doole nangu la nga yor kon maman kon nil muñ yàlla may la ndam amiin amiin yow itam nuyul ma xalifa mhm. te maa ngi lay encouragé defe naa yow itam exemple de loyauté nga xalifa euh, Sall ñi ko waroon ñëpp bu xamoon ne tey jii Bamba Fall koy taxawu kon dana dana ñooña mu gënoon a teg ci seen wet ndax man xam naa ko sama cousin la kon ñooña tey day bàyyi ñooña ñëpp jàpp la waaye nag ni nga toll rek nga def maa ngi la ciy sant bu baax waalo waalo yëpp a la ciy gërëm aussi ndax loolu la nit di ànde wante dafa am loo xam ne dafa war a dal xel wax naa ko léegi ci émission bi su fekkee ni borom réew dafa yore dooley réewam di la xool di la xool ba mu yàgg mu ni négal ma attaqué ko moo tax ma ne sama première semaine de campagne baax na li tax mu baax mooy dama dugg ci réew mi mu jàpp ne maire ba ma teg Bambey war na koo jël ca palais dindi xaalis jox ko ak oto ni ko demal xeexi ay dëmbooj kon man gañe naa ba pare benn responsabilité moo fa am de la majorité ba La majorité La majorité est la ñu majorité ndax majorité bu aux ordres La majorité boobu dafa nekk aux ordres du ak gouvernement. gouvernement bu nuy majorité ba la ñuy woo ñun du Nous tin dinañ def un séminaire ba a groupe majoritaire groupe minoritaire une figuration motax buñu né l'assemblée nangam ak nangam maniko ni ça relève de la responsabilité exclusive de la majorité te dama koy waxat diko confirmer waat ñun bokkuñu gisunu sànqaleñ na topp ñu diwoo suukar. est-ce que yaay jotul tay liste nationale jóge fi nga xam représentant yi nga xam parce que liste nationale bo cété parti bu né yaay seen ñi nga bëgg tab nga teg leen ci kanam ñom ñu jall té peuple bi falu leen est-ce que jotul tay ñu bayyi base bu nekk tabb ay député nga xamni député ci base bi lañuy ñuy wa loolu lañ leen waxoon wante xam nga liste nationale il faut que mu nek fi parce que amna ci ño xamné base bi duñ leen xam il faut que au niveau national rek la ñuy mën a kile tam ñoo xamni wax deug yalla dañuy am plusieurs bases. wala mo am proportionnel départemental bok parce que nit ki. non non c'est-à-dire que raw gàddu bi lañu wara war au niveau départemental. loolu mooy proportionnel départemental parce que nit am 1000 voix. yow nga 1002 voix jël député bayiko té ko. voix la rawee wala ah, deux. lolou baxul mais nañ nañ travailler rek té nit nañ yee nit ñi rek moi je pense que nit ñi buñu yéwo rek dina sotti. ba bawol noy na dal euh, ñu nga ca de en tout cas dal comme que sentir nañ ni. ci digg campagne. Mm. lañ génnee xaalis bari teg ci taabal ji. Mm. di corrompre ay maire daal xam nañ ne suñu campagne. borom teen yaag borom yooyu yëpp daal li ñu leen dugal ci pot. maa la wax loolu. jeex na maa ngi sa gannaaw yaay booy. <laughs>